kon nag li mu ni walaka fi man kaana mislul amawiyi uswatun bi iqtada kullu taqi kooku ni mu aada woo def ci ishaara ila qisas ak qisa maamoon boobu ak amin doomi baay ji lay juñ hada huwa asi li mooy teraanga gu tedd nga gu cosaan fa su ko defee tartafiu tartaqi nga kawe jamii ci mboolem ñëpp ku deful ne yow أتبخلا برد ما استعرته كضابئ فالبخل شر موبق شح برد كلب صيد وهجا أربابه ظلما فلم يصدق فلم فلم يصدق ومات في سجن ابن عفان كما قضى الإله ميتة المحزرق في سجن ابن عفان warul woon alif ak laam baat du boole laaf ak taar ak laaf sëjni ibn mudaaf la ibni afaan mudaaf wa najluhu min ajlihi ajaluhu min sarwati alxajaaji lam yakun waqi mu ni laa tabxalan bul nay mukk bi raddi mastaartahoo ci dellu delloo loo àbboon bu ca nay dafay commencé day junj ay xisa comme ni mu aadaw ka daabi in mel ni daabi benn waay la woon bu àbboon benn day dëkkaaleem ci arab yi mu àbb seen xaj fan rëbbi ci ñu abal ko xaj bi xaj bi neex rab bi daal lànk téye xaj ba nangootu ko delloo ay borom ba ñu dikk forcé ko nangu mu mer nag daal leen te xas xas xas yu ñaaw xas yu ñaaw yoo xam ne kenn mënu koo dégg waaw ba di leen tuumaal seen yaay ci xaj bi ni seen yaay ngeen koy nangul ndax xaj bi aw faram la seetal yooyu wax yàlla na ji waay dee rek ñooña ñeen ñi kalaame ko Ousmane ibn Affan ci xilaaf ak Ousmane eh, ñu kaso ba mu dee kaso eh, mu fa ndeke repp na mu dee kaso mu ni laa tab xalan bul nay bi raddi mastaartahu ka daabi in ki daabi ba mu àbbee kat ba te nay delloowu fa eh, mooy yées ji lu mën alag gi nit la mooy nay saxa dafa nayoon bi raddi kalbi saydin ci delloo xaju rëbb bu mu àbboon rëbb ci mu waxajaa mu xas ca arbaabahu ay boroomam ba ñu ko forcé nangu seen xaj mu wax leen ca lu ñaaw ni leen mooy seen faru yaay moom yéen ko nangul dégg nga lii falam yu saddaq zulman ci tooñaa falam yu saddaq dëggaleeku wa maata mu dee fi sijni ibni afaan ci kaso bu ko ibnu afaan tëjoon kama qadal ilaahu naka yàlla attee mu dee ca kaso ba yàlla dogal fekk na repp na ndax fekk na atam dat miitatal mu xasraqi maanaam comme deewu ku ñu xatal ndax ci kaso la dee wa najluhu min ajlihi ajaluhu min satwati lxajaaji lam yaqun wa najluhu doomu daabe boobu min ajlihi ngir loolu ajaluhu datu dundam lam yakun nekkut wuqiya musaleef ko min satwati lxajaaj ci congum xajaaj ibn yusuf althaqafi amiru euh, li iraq fi xilaafati abdulmalik ibnu marwan ndax euh, foofu nag li mu junj nee na doomu daabe boobu moom euh, ba mu ba xajaaj laajee ba mu wax ko ne daabi mooy baayam nee na kooka bañ baayam tax mu rey ko sax jéggalu ko waaye nag juum na ci histoire bi kooka du doomam boo seetee sara bi dana la ci wax loolu mu ci dollinu moo tax doomu daabi xajjaaj uh, jéggalu ko ngir ni ko doomu daabi duma ko jéggal nee ñu kooka boo seetee kooku dana fekk ni nag moom lëfam ci uh, uh, summa innahu walil xaji alal kuufati taarada lahu amru bnu daabi amru bnu daabi wa huwa cheikhu nee na am màggat mu laaj ko man anta falamma arafahu amara bi qatli wa qaala anta saaxibu usman ak fekk amara bu mooy doom ji loolu nag la ñu ne def ci juum kooka du doomu ah waala anna ah. wa hada ala ma inda naazimi wa qiila in alladi taarada lilxajaaj huwa daabiun nafsuhu kii daal nee na doomu daabi waaye nag it walladi taarada lilxajaaji huwa daabi nafsuhu waaw waaye kon boo tuul wax ju jëkk ji dana xaw a dëgër ndaxte daa bi danoo passé ni ma nga dee ca kasu ba ko Ousmane tëjoon kon nag nan la ko xajaaj di reyeeti ca ca ca Irak ndax bismillah kon li nu jëkk a wax rek nan ko ci ba wa xiila jooju nan ko ko bàyyeel muy xiil xiil xiila xiila di dem ah waxal wastur wastur ah loo loo waxal baat bi ma dégg wastur an ilxusaadi kulla nicmatin kam faadilin bi kasi makrihim suqi ah, fasaidun ala madiixi wardatin asbaxa munxatan bi qawli sahwat dafa jinji xisab waa ji wax said dégg nga mu ni ustur nëbbal kulla nicmatin bépp xéwal bu la yàlla defal nëbbal ko anul xusaadi wala suñu añaan ñi kam kam fadilin bajana boroom ngëneel boo xam ni suqiya nandal nañu ko bi ka si makrihim ci seen kaasu pexe yu bon te moom mooy naan añaankat yi seen pexe mu bon bu doon kaas ma ni bare na bu ñu ko nandalee ku am ngëneel lool fa saaidun waa ji ñox saaid te doonoon ko amu tur adib bu mënoon a way dégg nga euh, nee na euh, asbaxa mujj na mun xattan di aji sippi ku daraja bi qawli sahwaqin ci waxu ab fenkat ala madixi wardatin ci tagg gu mu tëggoon benn faloor ci kanamu benn buur tagg ko fa tagg wu yéem ñu di ko yéem benn waaye añaane ko ngëneel loola daal woote ni moom moo ko waxoon dafa wayam la man maa ko waxoon wayam ñu naan déet na waay mu daldi di dem eh, fexe ba indi dem wuti téere boo xam ne ba ñu dikkee fekk mu ni fii laa ko bindoon ñu fekk ca way yi ñu bind ko te ci ay pexeem rekk la eh, dégg nga su ko defee saa it amatul pexe ndax li mu waxoon lépp waa ji indi na fenal na ko ba indi lu ko weddi ba buur bi gëm na li waa ji mujj wax mënatula a miim bu ko jëriñ mu des ak gàcceem lool waaye nag mujj na mujj na mujj na dañ dëgg mujj na feeñ buur ba xam ne nag moom waa ji da doon feeñ rek mu dellu ci garaatam ba mu amoon euh, امتحنه بعد ذلك في أشياء أخرى فظهر صدقه فعاد إلى بره وتقريبه شيئا آه سهوق موي كذاب آه وافخر كفخر خالد بالعير والنفير لا بحلة من سرق soo bëggee damu wafxar damul ka faxri xaalid niki ndamal xaalid xaalid ibnu yazid ibnu muawiya du mooma ah xaalid ibnu yazid ibnu muawiya waaju baax la woon na na nga ko damoo comme damo <coughs> na nga damoo bil iiri wa nafir laa bi xullatin min saraq du jégee ni completu xariir saraq mooy xariir maanaam ay mbubb yu rafet yu waloore bu ko tiitaroo sooy tiitaru na nga tiitaru lu mat tiitar comme tiitaru euh, xaalid xisaam euh, mu ngi foofu xaalid su mooy ibnu yazid ibnu muawiyata fadilun ku baax la woon fadilu bani umayata wa aalimuhum xaalid ibnu yazid ibnu muawiya kon wuute naag bàyyam moo gën bàyyam de wa awalu man istaxala bi ulumi alxikma fi lislaam ulumu xikma yi philosophie yi ñuy xam-xamu grec yooyu nga xam ne euh, yunaan wa tarjumat lahu kutubul fala wa kaana abdulmalik euh, kathiran ma yaguddu minhu li laa tatashawafa ilayhi annaas fa faaxara alwalid ibnu abdulmalik dégg nga xaalit nag da mooy Abdul Malik ibnu Marwan boobu mooy xalifa mooy mooy ah, amirul muminin le te mooy jur nag Walid aywa Xaalid ibnu Yasid ibnu Muawiya booba moom seen nguur jeex na Yasid ibnu Muawiya jóge na fi bu yàgg waaye Xaalid des fi na doomu buur bi teew nag te mooy doomu Abdul Malik ibnu Marwan ki ñuy wax Walid moom la damoon te fekk bàyyam a nga fa Walid ni ko daal di mooy doomu buur bi bàyyam a teew mu ne ko uskut yaa xaalid fa wallahi maa tuaddu fi l iiri fi nafir yow bokkuloo ci ci nafir iir ci cosaan moo doon njëg moomu doon nettali ci istuwaaru badar iiru quraysh ba demoon saam yóbbu alal yi di defi commerce te saxaaba yi jógoon ñu ànd ak yonent ñu doon leen dogale si ba ba xew badar xew nafiir bi moo di gaañe jóge woon màkka di wallu di dàkku seen njëg moomu bañ jullit ñi dogale leen di ko jël iir ak nafiir seen diggante iir ak nafiir nag iir ba raw na nafiir bi jóge woon màkka di ko dàkki ñoom ñoo dajeeg saxaaba yi ci badar ba jadoo jaloore yi badar ji ngeen xam xew ba ah, kii nag lasta fil iir wala fi nafir arab di ko wax yow bokkoo ca ñee bokkoo ca ñee yow bokkoo ci iir loolu gannaaw bu mu demee ba yàgg ba yàgg ba yàgg nag di dëgg nde iir nafir ca xarnu nabi alayhi salaatu wasalaam la woon lii nag moom ci beneen xarnu la gannaawam ci jamonoy xilaafa bani umaway mu ne ko waaw fek arab di ko waxee naa waaye yow bokkoo ci iir bokkoo ci nafir ba kii nag walid nag wax ko xaalid xaalid ni ko way xak faman faman lil faman lil ciiri wa nafiri xayri man ciir ak nafir kan moo leen moom ku dul man jaddi abu sufyaan sama maam abu sufyaan saaxibul ciir abu sufyaan moo jiite woon ciir ba ànd ak waa màkka yi maanaam ànd ak uh, ñu ma màkk yi demoon yor alal ja dem Sham wa jaddi sama beneen maam utbatu ibnu rabia saaxibu nafir mooy boroom eh, nafir ba ah mooy ñi tëboon di di di dàkku seeni alal bañ jullit ñi jël ko kookaat sama benn maam moo jiite woon loolu man kon man kan mooy boroom ir ak nafir eh, walakin yow kay soo bëggee damu seetal rek law xalta su fekkoon da nga ni xunaymaatun wa jubaylaatun wa taif wa rahima allahu usmaana qultu sadaqta inna lillahi wa inna ilayhi ah, ah, dafa fekk xakam ibnul aas ci banu umaya la bokk mooy maamu abdul malik moomu jur walid moomu xakam boobu nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam dàqoon na ko génnee ko madina munawara mu dem taif nekk fa nekk fa amu fa lu mu lu dul daan fa sàmm ay gàtt eh, benn garab bu ñu wax xabla garab bu karma mu daan fa toog ca taatu garab ga di fa yendu seetuloo googu wàcc gu suufe googu kooku moo jur ah, ah, marwaan marwaan jur abdul malik bu mag bii tey abdul jur walit moomu waa ji nag bëgg ko fàtt fàttale manqué ak maamam googu mu ne ko nag bu mu ko ne yóbbu ko ci ir ci nafir te mooy doomu buur bi léegi mu ne ko man kuy boroom ir ak nafir ku dul man sama maam jee di Abu Sufyaan mooy njiital ir bi sama maam jee di Utbatu ibnu Rabiata mooy jiital nafir bi kon man kan moomu waaye yow kay soo bëggee wax soo ni woon laa ilaha ay gàtt maanaam yi maam ji daan sàmm foofu te ni ay xubay la maanaam garabi karmu yooyu te ni taif ndax loolu ci taif la nekkoon ba mu daan sàmm gàtt yi di yendu ci garab yooyu soo woon ay gàtt ay xubaylaat ak taif te ni yàlla yaram Ousmane man la wax nga dëgg seetal ma xakam foofa la du dëgg ba ci xilaaf ak Ousmane ibnu Affan kooku nag ñoo bokk maam Ousmane nag bi mu nekkee gannaaw Aboubacar ak Omar ba xilaaf ak Ousmane gannaaw ci jooy jamono Ousmane seet ni xëy na illa ba ko yónnee doon dàqe muy dem Taif jeex na léegi mu ni ko léegi mën nga ñibbisi indiwaat ko Madina dégguloo kii nag ni ko soo ni woon soo fàttalikoon loolu te ni yal na yàlla yërëm yërëm Ousmane maanaam moom sax a bokkati ci nit moom mi nu delloo si law qulta xunaymatun wa xubaylatun wa taif wa rahima allahu Ousmane qultu sadaqta la ilaha awa ah, yushiru ila makani nafyi nabii sallallahu alayhi wa sallam lil xakam ibnu al as xakam nag moo jur marwaan marwaan moo nekkoon secrétaire Ousmane ibnu Affan marwaan ibnu xakam marwaan nag moo jur Abdul Malik ibnu marwaan buur bu ngande bi nga xam ne nguur bu rëy la amee woon ci jamono Abdul Malik ibnu marwaan itam moo jëloon xajaaj ibnu yusufa def ko amir mu tëyeel ko réewu iraq wattaxidi sabra dilaasan saabiqa wa bi mi janni umarin la tattaqi wattaxid wutal sabra muñ def ko sa dilaasan muy mbubbu weñ saabiqan mu jot ak muñ danga ko def muy sa mbubbu weñ bi nga du wala tattaqi bul fegoo nag bi mijani amar ci mijan mijan mooy turs walla ñu di ko wax daraq loolu ñuy fegoo jees yi di ko yor mu mel ne mberu bu yaar mu ne nag laa tattaqi bi mijani omar loolu dafa junj eh, dégg nga ci baytu amru bnu amru bnu rabiata benn chab shaacir boo xam ni shaacir mufliq la te bare bare woon lu muy muxaasaratu nisaa ci ay wayam ak di def xasal ba Umar ibnul Xataab moom loolu naqari ko ci moom ba mu dàqoon ko moom it génnee ko Madina am Amru ibnu Rabiata bokk na ci ay xasi xasidaam bokk na ci ay woyam yi muy wax ci jigéen ñi wa kaana mijani doona man kuntu attaqi thalathu shuxuusin kaa'ibaani wa muxsir wa kaana mijani nee na li doon sama défense bu may fegoo doona man kuntu attaqi dox sama digg ak ñi may ragal li ma défense ci ñoom thalathu shuxuusin ñetti jëmm la yan kaa'ibaani ñaari jànq yu seeni ween taxaw wa muxsir muxsir maanaa koo xam ne qaaraba alxayda jigéen jot tolloo ci lee mu jot regalam mooy muasir léegi nee na ñoo ñoo ko doon làq ba ba góor ñi ko waroon a e, fiire di ko tëru jotuñu ci moom muy nettali loolu wa kaana mi janni doona man kuntu attaqi thalaasu kaa'ibaani wa mu'sir mu kii ni nag ni kon mi janno amru amru ibnu rabi ataba xeeb ko bul ko làqoo nanga def sa muñ muy mbubb weñ saabiqan bu jot wa in xamalta loolu laa yettasin xanaa yow xamuloo wasnu wa in xamalta raayata amrin loolu mën nga ko woy daf mën a in xamalta raayatan fakun na nga nekk ca ba ka jaafarin ni ki jaafar ibnu abi taalib ndax dafa yow ma mu'ta ba ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam boobu fekk na ñibbisi na jóge xabasa lu yàgg ba xare mu'ta yonent bi alayhi salaatu wasalaam dénk leen ba ñuy bëgg a dem ne leen nag ah, ngeen demee ba ba fa xeex mi na diw jiitu na jaafar jiitu suñu ko reyee na diw fab darapo darapo bi suñu ko reyee na ca na ko diw fab suñu ko reyee na ko diw fab ba ka ca mujj foofa la yam kooka la mujj rey jaafar nag ibnu abi taalib ci jàmbaar yi sujaan ab taal yi la bokkoon ba mu demee yor raaya ba di xeex di xeex ba ñu cor loxo ndeyjoor bi yoroon raaya ji ra au lieu raayit mu fëkk ko loxo càmmooñ ba tëdd taxaw loxo nday ndeyjoor bi moom wadd na ñu cor booba mu mu tëb bokk ko ci poqtaanam taxaw nanguwul ban nañu ko daaneele raaya ba dooral moom la ni wa in xamalta soo yanoo raaya soo yoree raayata amrin raaya mbir maanaam suñu la tegee mbir ci sa responsabilité yor ko jox ko àqam ba mu mat loolu rek mooy boo yanoo raaya raaya mbir nde mbir luñ ci xanaa ab xare la ñuy yoral raay nekk ca ka jaafarin comme jaafar de na nga mat sëkk ci taxawaay ja aw da mbaa nga ba wala tastabiq te bul jëkkante maay jël raay ji te mënoo ko taxawee xat xuti at mel na da nga ko ne raay jaafar lu xewa xat xuti at dañoo dagg yadaahu ñaari loxoom yëpp yow ma mutatin walam yada haa te taxut mu bàyyi raaya ba li kami yin ñeel jàmbaar sax waqin bu di aji njoole nangu ko bàyyi benn ponkal xanaa moo ko tëyee ba na mu àgge suuf lakinnahu waaye moom ixtadanahaa da ko kepp ci poqtaan yi xubban lahaa ngir sopp ko fa yaalahoo yéem naa ko min sayidin ci ab sang muwafaqin bu ñu may tawfiq mooy jaafar ibnu abi talib min sujaani sahaaba wa kun ida stunjirta min min wa kun ida stunjinta ida tun ji jitta misla man gaza ardal ira ardal ida bi kulli tërfin ablaqi wa kun na nekk nag idas tun jitta bu ñu sàkkoo ci yow ndimmal na nga bokk na nga doon e, misla man kom ka nga xam ne xasaa dafa xeexi woon dafa jëmoon a xare ardal ida suufu noon ya bi kulli tërfin ci bépp sasu naaru góor ab laq wu ndimb bu weex tàll xëy na mu'tasim euh, lay wax boo tuul mu'tasim walla wala Haaruna Rachid ku mu ci wax mu'tasim euh, ah, mu'tasima kay mu'tasim ibnu Haaruna Rachid moom la dégg ni ca réewu Room doyadal nañu fa benn jigéen jigéenu Haashimi teddadil ko ba mu ni waa mu'tasima wuy mu'tasim ndeke loolu nettali nañu ko mu'tasim ba wuy wuy mu'tasim jëddoo gi noppam mu daal di préparé leel boo xam ni ba mu àggee dal ak ñoom xare ba ma ngi naan ndaw si labbayka labbayka wuyu naa la wuyu naa la moom la ni bu ñu la sàkkoo ndimal ci yow na nga nekk ka comme que nga xam ni dal nay jublu ardul ida bi kulli tarfin ablaq mooy mu'tasim ibnu rashid mu'tasim nag ca arme ba la féete woon jàmbaar la woon ngir ki dem mu jële aywa wasum addu wa wasum addu wa diini bil xasfi wa kun misla abi yusufa zi taxabuqi radda kitaaba man daahu lil waxa minhum mu mumazzaqan mumazzaqan li farti lxanaqi wa qaala wa qaala inni laa ujibu bi siwa jaysin aramramin wa xaylin subuqi wa daraba alfustaata fi lxiini wa qad axaata jaysuhu bihim ka shawdaqi wa kaana maa qad absaru min ba'sihi ablaga min jawaabihi almushabraq mu ne noonu diine na nga ko teggal xas fi ci toroxte nateel wu kun nekkal ci loola nag misla abi yusufa mel ni abi yusufa abi yusufa ci buuri maghrib yi la bokkat bokkut ak abu yusufa alqaadi taalibu abi taalibe abi xanifa te kooku faqih la woon doonul woon jàmbaar ju jàmbaari xare ju ju siiw moom faqih la woon fi fiqi alxanafiya moom muhammad eh, ah muhammad cheybani maanaam ibnu kanati Mouhamad ibnu dégg nga Mouhamad bàyyi ko laay fàtte rek Cheybaan ah, waaw ci giiru arab bu ñuy wax Cheybaan la bokk Abu Yusuf ak Mouhamad hmm, bisimilah mu ni Abu Yusuf gan jàmbaar la def radda dafa delloo kitaaba banda ahu téereb Eh, waay ba ko woowoon lil waxaa ci xare benn buuru yéefar bu ko wooxoon ni ko sooba ñemee dikkal mu daldi delloo téere ba dénga nga ka la ko ka woo minhum la wax ah, radda kitaaba man daahu lil waxaa ka ko woo jëm ci xare minhum ca yéefar yi ca noon ya mu ma si xan muy ajji xotti téere ba li fartil xanaqi ngir tarug mer deful dara lu dul jàng ko rek daal di xotti wa qaala mun ni lii inni man day laa ujibu du ma ko tontoo bi bi si waa jëy lu dul ab lem aram ramin bu bare mbooloo waxay lin ak fasi naar góor subu xin dulu xin yu di way gaaw jam u xin yu gaaw ci wii ci wa dara ba mu dal di samp alfustaata tant ba fil xiini fa saasa ni buur yi daan def bu ñu dee taabetu jëys pour nit ñi xam ni mbir mi dogu nañ ci buur bi depp jóg na dañuy daal di génneel fustaatam tànt bi buur bi na daal ca bitti dëkk ba ca yoonu fañ jëm daldi ko fa samp ñëpp xam ni mbir mi taxaw na aywa su ko defee ñëpp daal ko fay fekk léegi fi saasi wa dara bu mu samp fustaat ba mooy tànt bi buur yu rëy fil xiini fa saasa waqad axaata peeg jëy suhoo lilam bihim ci noon ya ka shaw zaq mel ni ki ab lam di wëree loxo wakaana kaana daal di nekk maa qad absaroo la noon ya gis ba asi ci njàmbaaram te loolaay tontu la mu nekk ablaxa gën a am balaaxa min jawaabihi ci tontal mbindam al mushabraq lañuy ñuy rafetal di ak ci balaaxa ak yëg jékki woon di leen tonte leetar bu rafet nee na loolu moo ko gën a balaaxa ci lisaanu xaalam yaa saaxi ah engi ah, la mo lade taxambux ah, abu firiwunu ko de Uh, waaw kay rifaatu wal wal ulu si taxam bu xi kay aji kawe ah yaa saaxi fasxal fusxata al umri bima yaani wasur xibban rusuumal ayhaqi ah, nee na yaa saaxi yow sama àndaale fasxal da nga soxlaal fusxatal umri yaatuwaayu dudd gi na nga ko yaa feesal dell na ko na occupé chaxlul makaan mooy occupé loo ko daal mu bañ dem widd fashxal soxlaalal fusxatal umri yaatuwaayu dund na nga ko feesal bi ma yaani ci loo xam ne mooy am solo moo lay itteel moom nga war a ittewoo maa yaani maanaam mooy loo xam moo jara ittewoo wasur na nga ziyaara ji rusumal ay xaqi maanaam genti po na nga koy siyaare xibban ci génnal waaye bul dëkk ci fu ñu la fekk nga nekk ca seetaan ma nee na tamsanta doy na ci loo xam ne euh, ci ci ci rousseau mu ay sax maanaam genti foofu wal wal wabki ala zambin wa qalbin qarqasa ka saxri min hawaahu lam yastafiq ah. wabki ala zambin wa qalbin qad qasa na nga jooy ci bakkaar boo def ak xol boo xam ne dafa dëgër ka saxri mel ni xeer ndax xol mën na dëgër ba ñu di ko nérelay xeer alquran ne suma xasat qulubuhum bi azab fa hiya kal xijaar aw ashaddu dégg nga nga xani ni xol boobu lam yastafi ximmiwul min hawaahu ci topp bànneexam jooyal boobu xol bu ko yàlla nattoo noo koy jooyee bi muqalatin ci bët boo xam ka muqlatil xansaa yi ni ki bëtu xansaa uxtu saxr saxr benn jàmbaar la woon ci arab xam ngeen ni wax jàngeen ko fu ne ah, jigéen ba moo doon xansaa shaaira la woon mu jiit mu jiida eh, fi xilaafati omar ibn alxataab wa kaana omaru yastaxsinu inshaadaha fa taqulu laha iihi yaa xunays mu waxal ko di ko waxal waxi omar woye mi muy dégg su yegee mu ne ko ay wa xamsa moom la tasxiitu iiri iihi yaa xunays bakat jooy na moom xamsa ala saxri ci cemiñam li ñu wax sax ah, bila tawaquf ci lu dul taxawaal aw ka bukaa faariatin alal walid ah, alal walidi wa bukaa i xindifin wa xirniqi aw ka bukaa faariatin wala nga jooy jooyu mel ni faariatu ibnu tarif uxtu walid ibnu tarif ah ci xawaarij shaaira la moom it jàmbaaru jigéen joo xam ni jooy na ko jooy yu doy waar dégg nga moo doon wax ayaa sajara alxaaboori maalaka muuriqan ka annaka lam tajza lam tajza ala bni tarifi fatan laa yuridu almaala illa min altuqaa wala almajda illa min qanan wa suyuufi hmm. fayaa ah faqadnaaka fiqdaana alshabaabi walaytanaa fadaynaaka min fityaanina bi ulufi wayyu rafet yi doy waar ma faariatu bnul walid bintu walid moo ko doon jooye caminam yooyu njox walid ibnu faariatu dégg nga bintu tarif moo ko jooyee caminam yox walid ibnu tarif wa bukaay xindif xindif mooy zawjatu Ilias maam la ci maami Quraysh dégg nga waxir niq mooy uxtu tarafat ibn al abd aw takun aw kun mutammiman bukaa mutammimin ala dunubi warju afwa muatiqi aw kun wala nga nekk mutammiman di aji mottali bukaa a mutammim jooy waa ji wax mutammim comme ibnu nuwayra loolu na mutammim nu bàyyam tudd ala zeno bi ci jokk aw kon nga nekk mu tammiman di aji mottali bu a mu jooyu mel ni jooyu mu ala zeno bi ci bàkkaar war ju yaakaaral afwa mu'tiqin njégganu aji jéggle maanaam njéggalu aji goreel jaam njéggalu yàlla ana mu turu bàyyam di ko